خاتم أهل السبق فاتح أقفال القلوب بمفاتح أنوار العيوب مبكي كوك بي يالا جوخ واجي ني باشال موي سيدنا محمد كوتو خول لاكو يالا جوخ حاج منصور ستروندو خول ياب ليكوي اوبي موي واجي nga xamni نيو تاي فاتي fatte nañu li xew ci réew mi xew ci dëkk bi fàtte nañ ko ndax lan suñu xol yi kenn rek moo ci ne muy waa jooju tëdd medinatul munawwar sayyiduna muhammad moo tax léegi sid ahmed wallahi li nga wax rëy na xasida bii ñoo nga ca rawdu sayyiduna muhammad moo tax tey jii képp kuronu bâche bi le ne le wour ni yaa ngi ak sa laissez-passer janna yàlla na yéex rek waaye bis day ñëw nga bokku ci kuréel gi nga xamni nday jor lañu jëm te kiko yi gidi du kenn kudul ki wàññi keur njaay lo baasal muy sayyiduna muhammad nga xamni moy fatihi aqfalil qulub qulubi mi ngi ko defee bi mafatixi anwaaril uyubi ki may wax daal mooy imaami jaamii hadratul quds وخطيب مغفل خالق الجن والإنس ولا يكون خطيب آنذاك إلا من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وين كوي بقلت واكر جايلو موي محمد بن عبد الله خيرة خلق الله زينة عرش الله وعلى آله وأصحابه أولي المجد والصفا ومن بأثاره مقتفى إلى يوم الجفاء والوفاء ورضي الله تعالى علي القطب الأكبر ذي الصيت الشامخ الأشهر الكبريت الأحمر مولانا أبي العباس أحمد بن محمد سالم التجاني شريف الحسني الفاطمي حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد فضيلة السادة المبجلين أصحاب المعالي المحترمين إنه لفرح عظيم وشوق أريم أن أذف إلى جنابكم تحيات قلبية وزيارة ودية وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وكن جايلو دوغين ما فاي ولا لا دالون إليمان جا داف دال Chérif waaw kañ Maodo ma ni wala waa kër Njaay loolu la daloon ilimaan ja da dal ilimaan ja yàlla da ko nattu mu am ñaari soxna aaya ca ñaareel ba nga ñaareel yi ñoom ñoom seen ay mbir dafa xaw a kifin tarkal la mu toggal ko ñaari ganaar Chérif xam nga ganaar ak ginaar bokkul jaañeen bi xam naa imam jaañ jaañeen bi doon ni bi tey moom lu mu xewle xam nga ganaar laa wax ak ginaar bokkul waaw ginaar mooy mooy buy dund monsieur maire dàqal ginaar gi rek ngay dégg waaye bu paree ba ñu roof ko roof ko teg ko ci palaat delloo ko ay nenam ganaar lay tudd imam bi nag imaamu jaañeen la ñu jël ñaari ganaar yi teg ko muy julli timis moom daal imaam dafa ni allahu akbar daw ci fatiha rek muus mi daw jëm ca ganaar ya imaam rek la fatiha gi fatiha gi yàgg imaam ni afa xasab ñu ni waaw muus ma daw mu ni tumu annama xalaqnaakum waaw ma ne ka ganaar gi mucc na julli ga wér na Sidi Ahmed ma ni ganaar gi mucc na julli gi wér na loolu nag yaakaar naa dalul waa kër Njaay Lo barakallahu ñoo ngi nuyu ñépp di leen ziyaara nuyu sëriñ bi cheikh Mouhamadul Moustapha Sy bu Cerno Saïd Nuuru Sy bu cheikh alxaaji Abdul Aziz Sy waaye bu maam cheikhul xaaji Malick Sy sëriñ bi Sy ñoo ngi lay nuyu ñoo ngi lay ziyaara نيوغي لي زيارة زيارة استم اسم داد وتبرك وتعلق بارك الله كل خول خول نسوي جور يتدي كل خول خول سمام جو تدي برم بجاو بشيخ الحاج عبد العزيز واي كل خول سي خول نسمام شيخ الحاج مالك برم بارسون نيوغي لي زيارة نيوغي نيب نيوغي لي خول دي بركة لوتي يو نيانا يالا يالا يالا يالا يالا yal na yàlla wéral la yal na yàlla barkeel su lépp si wallahi yii fii nga ko de yokku nga ko taar waaye tënku nañ ci kilifteef si yal na yàlla sàmm la sàmm képp ku la booleel nga bokk moom wëli yu yàlla bu mag boobu muy sëriñ Cerno Saïd Nuuru si nga xam ni moom Cerno Saïd Nuuru ku ko bëgg da ngay texe ndax turam mooy firi leer ak texe ku ànd ak moom da ngay am leer waaye ku ànd ak Thierno Saïd Nourou Sy da ngay texe fii ci adduna sa aajo di faju waaye àllaaxira nga dajeeg moom mu dajeeg baayam El Hadj Abdoul Aziz mu dajeeg maamam Cheikh El Hadj Malick mu dajeeg Cheikh El Hadj Omarou Foutiyou maam Alfahima yore wele waaye mu dajeeg Cheikh Seydi Ahmed Tidiane góor ga tëdd Faas waaye mu dajeeg maamam Seydina Mouhamed rasul claqué buntu aljanna taalibi Thierno Saïd Nourou yëpp dem aljanna. Serigne Cheikh Fall jërëjëf kër Njaay Lo moom da nuyoo ñu lay nuyu waaw ñoom dañuy fayu nuyoo monsieur le maire jërëjëf gis nañu teraanga gi yal na yàlla saxal teraanga sa lox gàmmu gii de na la wóor ni lépp loo bëgg ci dëkk bi ci barke kii ñu waaye barke ki ko liggéeyal muy borom parasol bi maamu Serigne Moustapha Sy Cheikhul Hadji Malick na la wóor ni loo bëgg ci dëkk bi yàlla dana la ko defal yal na yàlla barkeel képp koo àndal ak taxawaay ndaw nga waaye yal na yàlla barkeel sa liggéey barkeel sa lépp te yàggal te yàlla takkal la yeneen garaat yu ëpp yii ci barke waa ji ñu baasal muy Seyduna Muhammad monsieur le maire ñoo ngi lay nuyu ñoo ngi lay ziyaara nuyu bu baax a baax macha allahu borom dëkk chef de village ñoo ngi lay nuyu ñoo ngi lay ziyaara nuyu imaam yu tedd yi le olonu bâche bi imaam ñoo ngi leen di nuyu yéen ñëpp imaam Diagne ñoo ngi lay nuyu di la ziyaara yaag sa mbokk imaam yooyu yëpp ñaanal leen yàlla yal na yàlla yàggal leen ngeen yàgg ci kanamu mbolo mi te lepp lu ngeen jaamu yalla julli ko yalla yalla nanguko tabarakallahu haji mansur humma ñogi lay nuy ñogi lay ziyara ñogi lay ñaanal yalla ci taxaway wallahi sank ba nga taxawé rek sama xel sama xol dafa dem ci jambar ja sayyidina hasan humma nga xamne heure bi tembe da nga taxaw rek wallahi melni yalla dafa ko teewal sama kanam والله ليرم روحم مجي في باش سايوين باش روحم مجي عندك يان نخ نبي كوخ نبينا كب القران كوخ يالله ني ني دون يونغو غير من بونو ديو ديو نيو لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما اتاهم الله من فضله يالله ني ما جوخ سين لب deewuñu ndax ku dem madinatul munawwara maa nga dem Tiwaawan maa nga dem Faas di nga yëg ni Muhammad ne képp ku ñëw madinatul munawwara nuyu ma man rasul yàlla delloo ma sama ruumaa lay fay sànq dama wax ne képp ku ronu bâche bi yaa ngi amee sa laissez-passer aljanna maa ngi ko teg ci waxu sayiduna muhammad rasul le bâche buñ ma bâchal man sayiduna muhammad yëgoo ni ku ronu bâche ba sayiduna muhammad ne yaa ngi ak sa laissez-passer aljanna yàlla na yéex waaye dee daagu rek dem aljanna ndax nabi ne amul benn barab buñ may tuddee man sayiduna muhammad lu dul boo yàlla yàlla delloo na ma sama ruu ca madinatul munawwara nabi ne ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu ruuxi fa usallimu alayhi nabi ne amul benn jataay bu ñuy tudd sama tur wi lu dul boo malaayika na ma sama ruu ma farankulaayu sama bàmmeel jàkkaarloo kër njaayu loo ñooñu tàntal ma tànt boobu ñu ma tàntal soppe yaay Aïcha yi tàntal sayyiduna Muhammad ne ma jàkkaarloo gi yéen heure bi doyloo du ca yam danaan malaayika yërmande yi xam nga lu ma bëgg dama bëgg ngeen lim bâche ba képp ko xam ne toog na xaar sëriñ Moustapha si ñuy joobe sayiduna Muhammad di màggal waa ji sayiduna Muhammad képp ku toog ne Moustapha de heure bi tembe jërëjëf maam yal na yàlla yàggal la yal na yàlla wéral ci barke soppe baabu sayiduna Muhammad yaa awa jërëjëf géey yal na yàlla barkeel sa ci barke sang bi sallallahu alayhi wa sallam heure bi tembe de Sidi Ahmed Mbaye yëgooni sayyiduna Muhammad yàlla delloo nako ko ruwam ci Madinatul Munawwara malaayika yërmande yi ñoo ngi rasulillahi Mustafa lu xew muni wa waa kër Njaay wax de tey Dakar yëngu na lool waaye li muy yëngu-yëngu ñoom daal a nañu ba baachal waa ji suyiduna Muhammad nabi ne e malaayika yërmande yi gaaw leen gaaw kuronu bâche bi bind leen turam lu leen ci yem de bind leen tur way juróom bu góor du leen ci yem bi bind leen tur way juróom bu jigéen nabi ne ëllëg yowmal qiyaamati bu yàlla paqueté asamaan si arrangé suuf si écarté montagne yi chérif xam nga benn bis la kallaa iza dukkati lardu dëkkan dëkka أي مدك كان وجاء ربك والملك صفا وجاء وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان أن له ذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يلصق وساقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ببوبا سن سوبي سيدنا محمد ممرك مويدك ديك ديك waa kër Ndiaye Lo xanaa ku sopp rasulillah yi newu fi maa ngi joobe bàyyu Fatuma ak Umu Kulsoom Ruqayatu Zeynabu bàyyu Abdoulaye Ibrahima Qasim maam yi Abdou Khadir Jilaani maam yi Cheikhuna Tijaani yaakaari borom Touba soppee Cheikhul Haaji Malik góoru góor ñi giiri giir ñi garmi gararan yi lingeeru lingeeru Seyduna Muhammad may dóor paa jëm buntu aljanna anaati baabal jannati yowma alqiyamati fa astaftaxo fa yaqulu alxaadinu man anta fa aqulu muhammadun fa yaqulu bika umirtu la aftaxa li ahadin qablaka seen soppe ba sayduna muhammad waa kër njaay loo mooy taxaw buntu aljanna moom rasul mooy amee laissez-passer yi képp korono bâche bu ñu bâchal njool makka moustapha jox la laissez-passer aljanna dóor paa kalaake buntu aljanna bëkk néeg ba ni ko présenté wul mu ni ko man na muhammadu rasulillahi mu ni yàlla nee naa ko tëj ba mu ne rab yow mu sawa boo ñëwee moo bugg ba mu ne ŋàpp waa mani waa bâche wi waa kër njaayloo ana ñu bëgg waaji rasulillahi yëgu leen ni ku ci fettaso day klaxonné ci buntu aljanna ya maa ngi ñaan ku jóg toog ku jóg taxaw nga toogaat yàlla nga tàggoog tànk yu metti yàlla yàlla faj sa aajo ci barke waaji sayduna muhammad sid ahmed dafa guddi والله ما خلق الله ولا براء يقولي واجي سيدنا محمد دفتوك تشلل السكراء رسول دفا توك السكراء المصطفى توك مم سيدنا محمد جلالو يا عائشة لا توك بمو توغي جاخله ملك الموت نيو دي جل روح سيدنا محمد مصطفى بوزيك كو كيشن لو سيد احمد والله ما خلق الإله ولا برا ملك الموت مستوى بوزك كشو نيكو أنا جبريل عليه الصلاة والسلام نيغا خمني 23 ans يا القرآن دان وات موي نيو نان ما يالا ني وال جبريل مو نيو بلا غي جيل سما رو يوم ملك الموت والله ما خلق الله ولا برا سي جبريل عليه الصلاة والسلام نيوني تشب ñëw ni Moustapha yàlla ngi laa nuyu yàlla ne mi ngi lay nuyu mu ni maa ngi koy fay yàlla dama koy laaj Jibril laajal ma yàlla ëllëg sëriñ Moustapha laajal ma yàlla ëllëg lan lan nar sama xeet wi sama xeet wi fan la ñu jëm ëllëg ci saa si جبريل عليه الصلاة والسلام مول خول مصطفى نيكو يالا ني خنا داغا فاتي بو فاتي وول ما فاتي لا يالا ني سا خيت وي نيتي خاج لا نيو امام جاج نيتي خاج ياب الجنه لا نيو جيم منكوا منكوا جنجل القرآن ثم أورسنا الكتاب الذين استوينا من عبادنا فمنهم ظالم ومنهم ومنهم ظالم للنفس ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أصابر من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحضن إن ربنا لغفور شكور الشكور الذي حلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها النصب ولا يمسنا فيها اللغوب سير أحمد لوخ والله ما هرق الله ولا برا إيه، يلا خيتك سيدنا محمد نيتي خاج لنو فمنهم ظالم للنص am na kuy tooñ waaye bu tooñee di jéggalu te yàlla ne istaghfiru rabbakum يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين يلا لا كيف كجيجلو يلا لا تون تون وجيجلو يلا بكو تخيط واجي سيدنا محمد يلا جيجل مصطفى نيكو نيونيو برمير جروب بلانيو الجنة موي سما كلاس جي نيوم تي تون رك لانيو دك وايه بنيو توني بكر جي سدي bu guddi gi xaajee ñu yeesal seen njàpp julli ñaari rakk amee seen kurus naan astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah yàlla ni baal naa leen waaye fa minhum muqtasidun ñaareelu groupe bi am na ñoo xam ne yéen saa boo demee ca ndaata tallax ga ñoo koy toj boo demee fële ca yëngu leen dañuy yëngu di yëngu di yëngu di yëngu ba naaw waaye bu ñu lalee malaanu wasifa ba ñoo fay jiitu ba mom yeen saa nga xol ci ko xamné do xam do xam fan nga ko xamé ci ñaari kuréel yooyu ndax bu yëngu mu yëngu ji moom waye mi ngi ci digg bi alquran ñi nga xamné yeen yenn ñu ne ci digg bi yeen saa ñu dem fi yeen saa ñu ñëw fi yàlla né ci xeetu mustafa yàlla yàlla dafa bëgg waji rasulillah niko يالا يو مصطفى نيون يونغا خامني يان ساي نيونغو في يان ساي نيونغي في داني ديم با ياغ سين خول يا نيك تي يالا نيواي ني توب دي جيغلوغ يالا نيك تي مالان ما نانا صبر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم نان لا اله الا الله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 waaye groupe bi ci des muy troisième groupe bi yàlla ne mooy ñi nga xam ni ñoom ñoom dañuy xëy ci yàlla imam fu yàlla dem fa dañuy xëy ci yàlla gontu ci yàlla fanan ci yàlla yewu ci yàlla ñoy groupe bi nga xamni ñom direct aljanna la ñu jëm alquran ñu ko wax sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu lil muttaqin alladhina yunfiquna fi lsarraai al ghayz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibu muhsinin kuréel gogu moy sabiquna ila maghfiratin min rabbikum ñi nga xamni ñom seen lépp aaya yàlla la ñomit aljanna lañu jëm waye ki tax yàlla defal ñu loolu mooy ki ngeen baasal waa kër Ndiaye Lo muy Sayyiduna Muhammad nga xam ni moom ku ko bëgg sa yàpp yaram aram na safara moom rasulillahi ko toog ngir moom sa yàpp yaram aram na safara bâche bu ñu keral Sayyiduna Muhammad si yal na yàlla teral la ci barke sang bi sallallahu alayhi wa sallam waaye waa jooju laa ni ku ko bëgg sa kër mooy aljanna waa kër Ndiaye Lo ana ñi bëgg Sayyiduna Muhammad gisuma dara de dama bëgg ñuy fettasu waa kër Ndiaye dama bëgg ñuy di fettasu fasu di fettasu ku ci def nii yàlla nekk sa laissez-passer aljanna te yàlla nga jàkkaarloog waa ji sayyiduna Muhammad eh Sidi Ahmed guddi na gaawal gaaw dafa guddi xam nga gàmmu gi gàmmu gi moom ren dañ koy def gàmmu force force force track rek lañ koy def naawal ko rek ci pel ko te jox sëriñ bi macha allah wala Sidi Ahmed ku wax loolu sayyiduna Muhammad Cheikh Hadj Abdou Finali ne ana ku sopp na baax Malick wax ma ni bâche bi daal dafa mel ni ñu sopp borom dob borom bijjaaw ba Cheikh El Hadj Abdoul Aziz ana soppay dob baax yi maami Serigne Moustapha si mooy joobe Seydouna Mouhamed borom bâche. bu baax lil mugrimin ana jaatun. eh El Hadj Abdoul Aziz sa maam si sa maam Cheikh El Hadj Abdoul Aziz sa maam ju tedd ja. borom bi jaw bu rafet bobu gor gu nekkon ay nu maa di teewoon jëg saa wuutu baayam ay magam 40 ans six mo fukki fan ak juróom zéro de chez sa tache ni rature bayu serigne mawdou si bayu cherno Saïd nourou si wa keur Njaay lo xana ko ja Abdul Aziz new bi borom bijjaaw ba maami Sëriñ Moustapha mooy joobe rasulillahi laawa lilmujrimina rajaatun alaaji Abdul Aziz حب طه بق واجوج ننام طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى حب طه للمذنبين رجعت بقى يلا ديني خل طه لك بقى يلا ديني خل ياسين والقرآن الحكيم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 alaaji Abdoul Aziz ne waa ma ne ana soppee dabaax yi def leen di ñu magal alaaji Abdoul Aziz ne bëgg taaxa muy Seyduna Muhammad najaatun sauvetage la wa amaanun min hawli yawmi liqaayi alaaji Abdoul Aziz ne wa amaanun sécurité la min hawli yawma liqaayi tiitug yawmal qiyaamati si innahu nabi eh waa ma ne ana soppee alaaji Abdoul Aziz yi mooy joobe Seyduna Muhammad innahu nabi yi wax ma ne bâche bi daal dafa mel ni soppee dabax yi newuñu fi de waa kër Ndiaye Lo ana ñu soppee Alaaji Abdoul Aziz mooy joobe Seydina ibn Hubban Nabi eh! ne bëgg gi mu bëgg Seydina Muhammad xaalata laxmi xaalata jaxasoog naag laxmi sama yàpp yaram wa idaami alhaji Abdul Aziz wa idaami dem na ba ca yàq ya wa dama doonay bàyyi Sëriñ Maodo si bàyyi Cerno Saïd Nuuru si ana ñu sopp Cerno Saïd Nuuru si bàyyam ne dem na ba ca yàq ya liy circulé sama veine yi mooy bëgg rasulillah محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين هذا شوقي هذا ينقلنا شوقي سما تشوفيل لحب خير المرايا يا خمني مو كنت من دي في إمام جاي مظهر اللطف موي فين وايو نيوانت أكرم القدماء سن مصطفى سمام نه مو گنا تد چي يوننتي سيد المرسلين monsieur le maire mooy sangu 313 yi baraaya ki ngeen baasal soppe yaa Aïcha ki ngeen baasal muy Seydina Muhammad ëllëg yawmal qiyaamati mooy jubal mindee lirinallah jëmee leen ci ngir mandeeg yàlla walid zahra Sidi Ahmed moo jur Fatima ana soppey Fatima yi lo Abdoul Aziz ne bëgg gi ma bëgg Seydina Muhammad nii la mel ci man. fardi mooy sama farata. wa nafli sama am ne mooy sama naafila. wa sharabi sama am ne ndox mi may naan maa ngi ciy sentir bëgg Seydina. wa muniyati imam sama am Cheikh El Hadj Abdoul Aziz sa baay bu tedd ba ne sama mébétu àdduna mooy bëgg Seydina. wa ibaay ne bu ñu tegee ndab li ñuy añ mbaa ñuy reer maa ngi sentir waa ji Rasulullah. ala usab na tax waa ma ne bâche bi daal dafa mel ni soppay Seydina Muhammad yi newu fi maa ngi joole waaji rasulillah wa bayti mooy néeg ba may aj muy Kaaba ga wa zamzami mooy sama ndoxu zamzam bu may dow safaak marwa wa xatimi mooy doj bu ñuul ba nekk Kaaba wa maqaami mooy sama maqaama Ibrahima. wa marwati. mooy sama marwa Sidi Ahmed. wa sawaayi. mooy sama safa daw safa ak marwa. yasribi. maa ngi ñaan ku ci def nii yàlla nga daw safa ak marwa ci barke Sayyiduna Muhammad. yasribi. mooy madinatul munawwara. xubbati. mooy xubba batim rawdu njool makka. baaye baqi. mooy masjidul Quba boo ci jullee ñaari rakk nabi ne am nga. umra bu yàlla nangu ànd ak man. uhud. mooy jubalu Uhud nga xam ni sayyidu shuhadaa foofu la daanu. suufati. mooy sama suufoo ma nga ca wetu jàkka ja. wa kanzu ghinaay. Alaaji Abdul Aziz ne bu ma génnee àdduna kenn du ma donn ci alal sama compte sama compte bancaire mooy bëgg Seydina Muhammad man Alaaji Abdul Aziz. wa xilli. waaw waaw man ana soppay da baax yi waaye Alaaji Abdul Aziz moo bëgg Seydina Muhammad. wa xilli. mooy sama xilla. masaaya. moy sama doxu way babu salami sid Ahmed yow mi dem Makka boy duggu Kaaba ga babu salam ngay duggé alhaj abdul Aziz ne moy sama tiofel ci njol ma wa mataafi. eh bu may wër Kaaba ga nga xamné tawaf ñaari tawaf mo am tawaaful qudum ak tawaaful ifaada tawaaful qudum mom ngay jital nuyo ko Kaaba ga tawaaful ifaada mooy tawaaful hajj mënul ñak ci ak wa bi ru xarsi hada yëgoo ne ponk ak ñent rek la muy. mooy armal waaye tawaaf saayu bayna safa wal marwa wuquufu arafa waaye tawaaful ifaada wa kafi ومن أنا صبي سيدنا محمد ما جواب واجه رسول الله هو كافي إيه إيه لما بقنا نجوخما سرين مود ولا الله وشيخ سيد أحمد التيجاني رك مدوق شيء خلاص الذهب تجف سرين أبا العباس يا كنز المعالي وكرن جايلو دما دما يسير ندخ وكرن جايلو بقنا شيخ سيد أحمد التيجاني ويا أنا طالب سرين مود سي مجاكر لك سني سرين بشيخ سيد أحمد التيجاني كم صبول سرين مود أنا دفني موي جوابه Cheikh Sid Ahmed Tidiane suñu sëriñ ba. li nak bala ma koo firi dama bëgg ñun ñëpp ñuy def iltizaz ñun ñëpp ñuy fettaso def leen ni ñuy fettaso di fettaso di fettaso ba bash bi naaw ma soko koy firi gaawal gaaw gaawal abal abbas yàggal maali waa kër yaay loo daal dafa melni ni soppey suñ Maodo si ñu fi ana soppey Cheikh al Alhaaji mali taw Cheikh al Alhaaji abdul Aziz gor gu rafet gogu nga xamni mo jakarlo jàkkaarloog Cheikh sid Ahmed Tidiane suñu serigne ba wal warisu al qutb at Tidiane Ahmed أحمد هو العلم الهادي مفيد الشريعة أمدك أنوارا حواورده الذي بنته يدا طه إمام البرية الأرواح جنود مجندة فما تعرف من التلف وما تناكر من اختلف ومنها اتلاف المريدين بالإرادة والمحبين بالمحبة والمشاقين بالشوق والمستأنسين بالأنس والكاشفين بالكشف والعاشقين بالعشق والأنبياء بالنبوة والأولياء بالولاية والمرسلين بالرسالة أنا تالي الشيخ سيد أحمد التيجاني كما سبل الشيخ سيد أحمد التيجاني نجوك تخاو توغات كجوك تخاو توغات يالا نغا تغوك تنكو يمتي جي بارك الشيخ سيد أحمد التيجاني أبا عباس يا كنز المعالي سرين مودولي كما may woo mooy abal يقولي yëgooni sa baay sëriñ Maodo si حرف النداء يا أبا العباس وحسب يا يجوز في النداء كقولهم رب استجب دعاي سرين مودنا يا أبا العباس ما وو كي خمني موي بايو كيب كو أم بروبلم اللي يوم القيامة سرين سوا كيب كو كانم نيك شاجة nga nga nga sonn lool jaaxle yowmal qiyamati cheikh sidi ahmed tidiane ne may may ku am problème sama taalibe du am problème yowmal qiyaamati sama taalibe du jaar sira sama talibé buy jéggi sira Cheikh Sidi Ahmed Tidiane ne malaika yi lay luye sen lafi ñu talal ko sira jéggi sama talibé du dugg safara Cheikh Sidi Ahmed Tidiane ne sama talibé ma nga ca illiyiina ànd ak sayyiduna Muhammad alayhi salatu wassalam sen seen ba Cheikh Sidi Ahmed Tidiane bu yàlla ne malaika ba Asrafil wala buftu bi al qiyam taxaw al qur'an ñu ko nettali yawma yunfaxu fi suri fatatuna afwajan wa fatahat samaau fa kanat أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مهابا لابسين في عقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفاذا حدائق وعنابا وكواعب أترابا وكاسا دياق لا يسمعون بها اللغوا ولا كذابا جزاء من ربك أعطاهم حسابا أصابا رب السماوات والأرض وبينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملك صفا لا يتكلمون لمن أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك يوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إن أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بوبا نيب دي jaaxle di daw bu ñu dawee ci Adama Adama ni sama bopp laa tal ñu daw ci Moussa Moussa ni sama bopp laa tal Isa yonent waaye bu boobaa balaa sang bi sallallahu alayhi di ñëw Cheikh Sidi Ahmed Tidiane puju mu leer la ñuy defal cheikh ca ñun ca pangug yowmal qiyamati cheikh daal di ca yéeg waaye bu yéegee benn haatif haatif mooy ki nga xam ne da ngay dégg kàddoom te doo ko gis mu ne ya alazal mahshari yéen pangug yowmal qiyamati waa ma ne ana taalibi Cheikh Sidi Ahmed Tidiane ñëpp taxaw jaaxle taalibi Cheikh Sidi Ahmed Tidiane ñiy saqar mi nasiril haqq bil haqq di كنطاعة الحق بالحق نيغا خمني إفادتك منك إليك muy digënté mak maamam sayyiduna Muhammad yëguni sayyiduna Muhammad musimiku musimiku ci Cheikh sayyid Ahmed Tidiane kéro ci jabalu Arafa bim koy takkal maqama maqaama khatmiya bi ko Cheikh di takkal bi ko maamam di takkal ci jabalu Arafa yàlla dafa dekkal fukki yon fukki yonent ak ñent ño fekkee ño fekkee jotaay ba سيدنا محمد sol manteau bu verte waaye keroog Serigne Cheikh Tidiane si élève yàlla bi borom mustarshidina wal mustarshidaati ana taalibi sëriñ Cheikh Tidiane si góor gi nekkoon ci rob bi ne kérok la xew fekke nako ko mu Cheikh ma ngi gam kër Njaay Lo dama goudé garat bo nu mu demee mu ni keroog Moustapha dafa cëppeelu hada rasulullah yowma nuzulihi mutaqallidan bil haqq wal burhani nee na melokaanam keroog nii la mutabassiman farahan bi safi malaikin basatoo ilayka akuffahum bi tafaani keroog ñoo ngi jàng salatul fatihi waa ma ne ana taalibi Cheikh Sidi Ahmed Tidiane yatalaqanoo يصلون صلاتك العظمى التي ما بعدها للجنس من قرباني يقول حور عيني نيونغي تخاو تي بارنتيرو الجنه دي سينو شيخ سيدي احمد التيجاني والحور من بين النوافذ في الحما متفرجات فيك كالولدان وهي كراك وعليك برد قد كساك محمد سيدنا محمد سمي مانتو بفرتبا سولال كو شيخ سيدي احمد التيجاني سباي سيرن مودو موم لاي تاغ ابو العباس abbas ابو العباس ابو العباس يا كل المعالي سيد مولانا مانغي ووكي يا خمني يا كنز المعالي يا مانغازي كالا ويا فخر الزمان بلا مثالي سيد مولانا ويا فخر الزمان مانغي ووكي بوكريك زمانو bila misaal yi imam Cheikh Sidi Ahmed Tidiane amul koo koy tollool gisoo ku la xool yëg ni yaa ngi saqar ni naasiri lxaq bilxaqi ndax siimaahum fi wujuhi min nasari sujud dalika masalum fi tawrati wa masalum fi linjili ka darci naxraja shatahu fa adarahu fa fastaxlada fa sawaa ala suqi yucjibu zurra alyazabu lkufa waada allahu alladina amanu wa amilu salihat minhum magfiratan wa ajran azima cheikh bila misaal yi amul kenn koy tolloog Cheikh Sidi Ahmed wa badran suñ Maodo ne waaye badran maa ngi woo weer wi nga xam ne yasiu bi ne cheikh moo leeral gox yëpp gox boo fi mën a daa fa fekk ndongoom bu mat sëkk sëriñu gaay yi ñuy nattoog Cheikh Sidi Ahmed Tidiane yuniirul waaw ma ni ana taalibi sëñ Maodo si sëñ Maodo ne yuniirul kaw na cheikh mooy leeral univers wi yahdi lil jamali Sidi Ahmed yuniirul kaw na yahdi lil jalali yuniirul kaw na yahdi lil jalali yuniirul kaw na yahdi waaw def leen nii waay ñu màggal sëñ Maodo si mooy doome sëriñu sëriñam sëriñam di sëriñu baayam di sëriñu maamam cheikh Sidi Ahmed Cheikhuna Tijaani yudiru qalbi bu tedd ba Sëñ Maodo ne yunirul kawna moom Cheikh moo leeral univers wi waaye yudi lil jalali waaye day jubal jaam yi jëm ci yàlla fa hada Sëñ Maodo ne man Sëñ Maodo si Cheikh Sidi Ahmed Tidiane maa ngi jàkkaarloog yow waaye maa ngi lay yëgal ni man sëñ Maodo sama xol mi ngi baj baji mi ngi yëngatu maa ngi tëb man sëñ Maodo si mënatumaa tëyee te sama xol ñu ni sëñ Maodo lu la dal mu ni bëgg Cheikh Sidi Ahmed Tidiane. fa hada qalbu abdin du qiraarin déggal sa bàyyi ne. fa hada yow Cheikh Cheikh. قلب عبد خلو جامبي بو سيرن مودوسي بو شيخ الحاج عبد العزيز زطراب ماغي بج بج ماغي توب غير بغ لا يا شيخ سيد احمد تيغا يامل منك فيضا بالدجل دجل سيرن مودو اي يا شيخ سيد احمد تيجاني يامل جامبي ميغي مبت فيضا يا شيخ غي تورو يفيض فيضا يفيض فيضا سن باب كرسي موكو واخ يفيض فيضا موم شيخ سيد احمد التيجاني موي كونيكتي غورو يالله ييب ku bëgg connexion cheikh a lay connecté ku cheikh connecté wul ci wilaya do am connexion ala inna awliya allah la khawfun alayhim wa la hum yaxzanuuna alladhina amanu wa kanu yattaquna lahum albushra fi ad-dunya wa fi al-akhirah la tabdil li kalimati dhalika wal dalika al-azim wa ma li gayru ba min malabi sun Maodo aw ben buntu yo cheikh Seydi Ahmed Tidiane ku muy wéeru ku dul yow aya cheikhi lii bi lisaani sëriñ Maodo ne eh yow sama sëriñ bi Cheikh Seydi Ahmed Tidiane sa baay bu tedd ba si ne ayaa cheikhi yow sama sëriñ yow Cheikh Seydi Ahmed Tidiane nga xam ni Cheikh am wilaaya poson bi lay taal bi taal ba nga ci wilaya mooy cheikh sidi ahmed tidiane ya ahmadu tidiane ya gaysal wara kibrita dik التقوى وللإرسال تبناك الرسول إيه، إيه، إيه. وقال إني يا شيخ يا شيخنا أحمد التجاني يا غيس الورى كبريت ذي التقوى وذي العرفان تبناك الرسول وقال إني سن مودنا خلا سن مودو ونينا تشوفي لمبابا جاكارلوك ناك شيخ سيد أحمد التجاني نيكو تبناك دومونا لا يو شيخ سيد احمد التيجاني يونت بي يو رك لما سا واخني سخلوم يو دونغ ياي سما دوم مان مالو جور يونت بي جاكارلوك شيخ سيد احمد التيجاني خمغا فن لا جاكارلوك موم تي ابي سمغون بالي ابي سمغون كرو بيم كوي جوخ ناصر الحق بالحق طلعت الحق بالحق كرو لاكو واخني ماي سا ماي سا مام ماي سا باي مالو جور يو شيخ سيد احمد التيجاني باي لب لو يرهون ما جوخ لو لي گن كرو لاكو جوخ الناس للحق بالحق انا تالي بشيخ سيد احمد تيجاني كوجي دفني يلا نك سلسي باسي الجنه تبناك تبناك الرسول وقال اني شيخ تبناك دومون الرسول سيدنا محمد واي بام لا دومو با باي واخنا سيني مودا ني لان لا مراقيكم الى سبل المال شيخ ما ممنينكم مالي ييغل يو شيخ سيد احمد التيجاني لب لوي كاوي اك ولايه من مالا كوي جوخ با شيخ يا كوي سدلي كو سدل دو ام يو شيخ سيد احمد التيجاني واعطاكم جهادا خير ورد واماني انا طالب شيخ سيد احمد التيجاني سرين مودوني واعطاك جوخنا لا لا جوخ جدارا خير ورد جهان تشلولر نان خير ورد ورد بي گن تشي ورد جاي دين يقول لني وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه خير الرازقين لب نجن جوخه غير شيخ سيد أحمد تيجاني ولا نجن جوخه غير شيخ الحاج مالك ولا نجن جوخه غير شيخ الحاج عبد العزيز ولا نجن جوخه غير سين مام سيدنا محمد يلا نه مالو كاي رامبلاسي تمن يلا ماي سيد لي ورسغي دي واي ورسغي غين دي جوخه يلا دالين كاي دنتال الله يوم القيامة rawati yi leeral seen bàmmeel wërsëg yi ngeen joxe ngir waaji sayyiduna bihi nilnal fala bila jidaali waay waay Sidi Ahmed waa baam baam waatal loolu waay Sidi Ahmed bihi nilnal fala bila jidaali Sidi Ahmed je t'entends mal dégguma la waxaatal loolu Sidi Ahmed bihi nilnal fala bila jidaali Sidi Ahmed les yeux dans les yeux dégguma loolu loo wax Sidi Ahmed مولانا سيد احمد التجاني بهين فلا بلاد دالي سيد احمد your eyes and my eyes دقوا ملا سيد احمد الله Sid Ahmed, tu me demandes une question. Attends un peu, je vais te répondre. Sid Ahmed, dégoumalala. waaw ma Ahmed Tidiane yi newuñu Ahmed waral kilif ba tudd faas surtout Seydina Muhammad moom la ñuy joobe ñuy fekk su mu naan koŋ naan koŋ ci buntu aljanna yi ku ci def nii yàlla nekk sa laissez passer aljanna. eh, eh Sidi Ahmed you ask me question wait a minute I will answer you dama guddee lool. sëñ Maodo ne. ci barki Cheikh Sidi Ahmed Tidiane nii naa ci la ñu am alfalaaxa mbégte adduna ak laaxira bi laa jidaali te kenn du ci dagg chérif fa sarmul ahdi lil mahbubi shay'un ne maa ngi ñaan nag connexion bi ma am ak Cheikh Sidi Ahmed Tidiane suñ Maodo ne ngi ñaan connexion ba yàlla bu mu dog mukk أشق على المريد من النصال يقول كل براش وبرن يروت براش ما با الله لطيس لتيس به يلا نيو يلا دف درك واي مانلي يقلي كيف كو جاين تك شيخ الحاج مالك شيخ الحاج مالك جيس سيرين با موي سيرين سيرين با موي سيرين سيرين با موي سيرين سيرين با موي سيرين سيرين با موي جوروم ñaar yoon شيخ شيخ شيخ الحاج مالك سمام رك مام اجازه بو خامني شيخ سيد احمد تيجاني جوروم ñaar nit la defal te juróom-ñaar ya Cheikhul Hadji malik ci la bok bo beugé kuna su Cheikh da ngay joggé Fass ñëw Tiwaawan ki ko denc moy Cheikh mooy Cheikhul Hadji malik alam ko sopp mam Seydil Hadji Malick sëñ Maodo nee na fa antal xatmu wal xatmul mukanna ñaar garaat ya waaye guddina ñu dugg ci xilaasu dhahab bu maam Cheikhul Hadji malik min bayni katfayhi xaatamu nubuwa inda القدر gëdëwin israbila مرقد هاي ختام النبوة تنازل يسرى رابي الأول مولانا وعامر الصبا عدوان الكذب بها الهتام عدلتنا من بين كتفيك كتفي خاتم النبوة عين القد في السرى بلا وهم قدوس دونار دونار تمال عدلت بينك وبينك صفحة والنبوة العلم ناغض الكافر primeiro será Bilal A vida do bairro do canal Você sabe o que é o Yari Mamadule, Yari Mamadule, Yari Mamadule, Yari تقصفين لهيتك يا إمام دولامين تقصفين لهيتك يا إمام لهيتك يا إمام لهيتك يا إمام دولامين يا إمام دولامين تلم يا إمام دولامين هاشوا يا إمام دولامين ملا يا إمام دولامين مرتين يا إمام دولامين Mami Mamadou Lamine. Kulluway. Mami Mamadou Lamine. Lali. Mami Mamadou

Muhammadu Lamin. Ami Muhammadu Lamin. Ami Muhammadu Lamin. Ami Muhammadu Lamin. Lọ́ọ̀lù dọ́gùlọ̀ mọ ìmáàmì ọ̀nà. Adìlẹ̀ fẹ́lẹ̀ mọ̀ọ́nà. Ìjàkà àìwá Hamadu dọ̀. Adìlẹ̀ àná. Ọlọ́mọ̀ọ́nà ìjàkà àìwá Hamadu dọ̀. Adìlẹ̀ àná. Mọ̀ọ́lùsọ̀ mọ̀ọ́lùsọ̀ mọ̀ọ́lùsọ̀ àìwá Hamadu dọ̀. Yàrá. باقي وخل العمر ابو صلاح بمدق وليارم باقي وخل العمر دقنا وتغني ارنا خرح بين فماك ابو وجه النفنو Babalarım sana ölüko Amidurum abudum Babamacım balimam Babakuşame abadum Nebile velina Seyyidina Ayda gulu Ayda gulu Dekharay ayvah Ya abim balay يا خير خلق العين سواء مكليت الليل خير الجبر خد الغربي دلست الليل فجر دلست الليل فجر دلست الليل فجر ku bëgg seen baabak loxo ca kaw ku bëgg seen baabak loxo ca kaw jugal taxaw ca kaw ay jugal suba tisbaar takkusaan timis ba fajar ku bëgg na tax naa la loxo ca kaw ku bëgg Cerno Seydu Ndour loxo ca kaw ku bëgg sëñ Musu Dafa loxo ca kaw ku bëgg sëñ Musu Dafa yëkkatil loxo yëkkatil yëkkatil loxo yëkkatil loxo yëkkatil loxo dellu si di leen

doogal togay ci dula baayu Babacar wagal wala wala bay bëggul su bëggul xaal li jënti wala naka ku doon li jënti wala naka ku doon li jënti woo bi jënti woon dafay ñaar bi jënti woo bi jënti woon bi jënti woo بدلت وانا هلا بدلت وانا بدلت وانا هلا بدلت وانا بدلت وانا هلا بدلت وانا يا ولدي لن يرق البات شريع عليك Umu Khayre Isat Rabay May Pendal Mugan Tubay Mayer Waad Sayyid May SK Dina Jewa Lahata Kulpa Narna Aljana Bay May Amna Chay Tol Tol Iyana Al-Qiyamati Farji Tokdi Taysi Dalan Rabbul Tabarak Lahadaka Rabbul Tabarak May Mayhin Rabbul Tabarak May Sayyid May Tabarak May Haqiq أنت بارك الكمل كالخافم أنت بارك بين فين حق الكمل كالخافم أنت بارك بين أنت بارك بين أنت بارك بين حق أنت بارك بين كمل أنت بارك ربيت من ربيت من طيب طيب الخاف من ربيت من رجل في الحق ربيت الخاف من ربيت سرور رافال ربيت سرور رافال كن سرور رافال يا نكفر بكفير بكفير بكفير فير أمرض الله عظامه شخصي للحاج مالك سي من بين كتفيه خاتم النبوة عند نعض كتف اليسرى بلا وهم صمام شيخ الحاج مالك يالنا نيوكو يالنا فايا واكرن جايلو سين مام شيخ الحاج مالك بروم باراسول بابو غورغي نيا كسي كسي سخنا ايدسي سمام شيخ الحاج مالك سمام موي سيرن بيغا خامني لا يضاها ولا يباها ولا يمارا من سماه السماء له يد الطلاء والغاية القصوى والملجأ والمأوى شيخ المشايخ في الإسلام والدين سنمام المشار بالبنان الممكن بالبيان الذي قام قام به وإذ قعد قعد مع الله جميع أموره إلى الله وفي الله ولله سنمام الأجمع samam xaaju malik moom dong yàlla rek ne fi moom yàlla defaru moom yàlla ba mën a defare jël ci leeram moom yàlla bind leeruk sayyiduna muhammad samam xaaju malik fa la dépare ni الحمد لله ذي الإيجاد والقدم ممدنا بوجود البدر ذي القدم يلا رك نفي جل تلارم سمامنا يلا جل تلارم بند لارك سيدنا محمد ما ملاج مالكنا وإنه أراد الله نشأتنا أبرانا من نوره نور النبي العالمي سمام حاج مالك topp leeruk sayyiduna muhammad leer ga fu mu jaar sa maam ne xam naa sa maam ne soxna ayda sa ne pëtëx na ci fukki géej ak ñaar di fa sabbal yàlla géej gu njëkk ga fukki junne at ak ñaar la ko sabbal kiiraay ba toj ba ca topp fukki junne at ak benn sa maam ne ba ca topp fukki junne at ba ca topp fukki junne ba ca topp juróom-ñeenti junne at ba ca topp juróom-ñetti junne at ba ca topp juróom-ñaari benn juróom-ñeent ñett ñaar benn sama waajee kee raw moo gën mooy sayyidil awwalina wal axirina waa kër Njaay loo xanaa ku sopp Alaaji Malick newu fi Alaaji Malick ne kiiraay yii la ma ni Maodo dama guddee mu ni fa qudratun minnatun min qabliha azabun wa rahmatun saadatun lil muslimi karamatun baada fi laddi manzila hidayatun wa nubuwatun fala tekimi wa rifatun taatul mawla shafaa fi tamamu li tartibi fahtakimi samaam Xaaji Malick ne topp naa leer ga leer ga ku mu jaar ci góor Alaaji malik na xamna mané mawdo dama guddee damay jox ce sud bi Serigne Moustapha ndax jami mom lañuy la déglu sa maam El ne ga kum jaar ci gor xamna mané sa dama guddee mune mohammed Mouhamad Abdoulaye ko jur Cheybata ko jur Hachima ko jur Abdou Manaf ko jur ko jur ko jur Murata Kaab way ghalib fir malik Nadar Kinaanata Xudaymata mudrikat Ilyas Mudar nizar Maad Adnan sa maam El Hadj ne haji Mansour khum topp naa leer ga leer ga ku mu jaar ci góor wax naa sa maam Maodo ne ku mu jaar ci jigéen ah xam naa ma ne El Hadj Malick maam yu jigéen ya moom daal dama guddee damay jox sëñ Moustapha mu ne bankal sa baaraam imam Diagne fa hunna Fatima Salma wa Atika hubbe wa Fatima hindan la hunna simmi wahshiyatun bintu Shayban wa mawiyatun bil waawi Salma wa Layla Abdalam Tulami min hunna jandala la tansa Atika wa barratun summa bintu Saadi Dil Karami Salma wa Layla rababun sawdatun wa maanatu imam sa maam El Hadj Malick indi lamaru بن بات وعا يعي عي ولا يليلي شوا يشوي ishwi ndax bokkuñu waye bu doon washa bi firi njamna moy mooy na washa yëshi ala jamal ni al il abiyaata sama am ala jamal top lerga lerga sama am cité ken muy abdullahi mu nek sangok jamono sama am ala jamal ne lerga musul jaar ci mam wala bay bu ñak personnalité fama zalam man qulan min aslaabi tuhari ila tayyibat rahmi nema usulu maam aadama ku am ay cheikh la ala jamal ne ken rek moo ta nekk kenn alaaji Malik joxagn ko ne na la tuddu ma mawdo bindal Sénégal dañu bare wax mu ne wa kaana chiisu wasiyal asli muntaqilan min xiiratil kërami lil xiiratil kërami El Hadji Malick leer ga ndax vérifier ngoko surveiller ngoko sa maam ne vérifié naa ko xatta ntaha bi shumuusi nuuri muxtaqiran li qaadatil urb fiiral jillati nuzumi sa mam El Hadji ne top na ler ga amna say say bu jóg bëgg toj kaaba ga El Hadji ne xamna turam ma mawdo dama guddé mu ya wayla abrahatin dallat makidatuhu isma yasuqu fuyulan qasidan harami samamne jàngal sarwi ñu nan alam tara kayfa wa fi alam tara ma yashfi sudura liman ara unnahu fi ilmi halimi samam alaj malik ne xamna ba xam surnom surno surnom abraha surnoowam moy ashram xam nga lu tax ñuko don tuddé ashram imam bakkan ba xat ñaar dafa togn bayam bay ji bay ji jël jasi dur ko ci kanam nga bakkan ba xat ñaar samam alaj malik ne ay mafarru wal ila ابتلاه الطالب والاشرم المغلوب ليس الغالب sama malaaji maa ne topp naa ka leer gaa ngay dem ba nga ca nekk nekk ndigga Abdoulaye mu nekk sangoog jamono waaye nee na keroog ba leer ga di kite ci ndiggal Abdoulaye dem ci ruuxu mu Amina soxna Ayda Si sama malaaji Malick ne xam naa ban guddi la ma ne Maodo damaa guddee de maa ngi kër Ndiaye Lo ana ñu sopp Seyduna Muhammad ana ñu sopp borom parasol bi alaaji Malick ne leer ga kañ la kite Maodo ne xam naa guddi ajjuma la yëgoon ni téere bi xalaatu zahab boo koy vérifier moom téere bi sa maam El Hadj Malick mi ngi ko bind ci 21 jours la ko Cheikhul Hadj Malick bind waaye na la wóor ni junney wëy la ak juróom benn fukki wëy El Hadj Malick def ko ci Bahru Basir El Hadj Malick taalif ko ci 21 jours te li tax mu taalif ko circonstance la Maodo narul woon taalif xilaatu zahab bi muy taalif xilaatu zahab sëgg na bët yi gisatul day jàngale téere bu ñu naan xuratul absaar góor gi Ahmed Karim Gueye la koy jàngal ba yàgg mu ñëw ci alalu Moustapha alal Mustafa Moustapha am yëgooni mustafa xar bay musu mosu passé témèr bu passé témèr ñu réré ko wala ñu njogonoo ko wala ñu añee ka waaye gàtt bu ne dafa am turum maam El Hadj ne ñu nan yewil bu né yewil diw ñu dem yewil diw am gàtt bo xamni dafa am ñaari tur El Hadj malik ne borom téré bi juum def ko moy ñaari gàtt te ben gàtt la Cheikh al hadji malik seug siggi ni gor gui Ahmad Karim gey borom téré bi dafa dafa juum Cheikh al hadji malik il est le seul guide spirituelle, à la dimension humaine et intellectuelle, inestimable. ndax yura la dayhi dawi zikri yuqidhu man qad nama fi lodo aw sindona lil baji xanaa fi ku sop maami Serigne mustapha si maami cherno Saïd Nourou si cheikh al Hadji malik ne yiguni al hadji malik ne yiguni kero musa al hadji malik ne al hadji malik dafa siggi go xol gor gui ahmed Karim Gaye niko ko borom téere bi dafa juum ne jël xalimaam bayit bi mu njëkk talif ci xaatu zab moy bayit bi ma lay wax bi xawsatun duiyat aw ghaysatun yamanu shatun loo xamarun uddat fala tëgini gor gui ni ko sa bibliothèque bi la beug nga wax ma kuy sayyiduna Muhammad alaaji Maalik ne leer ga guddig aljuma le kite laylal arubati xalla dur fi rajabin sumbal munaadi yunaadi musmail fahimi alaaji Maalik ne écho yi don sànni asaman yi lañ don wax keroog ma ne bindal dama guddé ma ngi keur Ndiaye lo xana fi kuma soppal borom parasol bi alaaji Maalik ne ana attiro baxiro xayral buhur wa afrishu sajadati takriman ala alqudami sama alaaji Maalik ne naa ko bër leer ga bi mu nekkee ci ruxumu yaayu Amina El Hadj Malick ne première guddi ga laa commencé suivre leer ga El Hadj Malick ne bi ma amee neuf mois neuf mois yaay yaay Amina ne bi ma ëmbee sama doom ji damaa dem ba yàgg damaa dem ba yàgg dem ba yàgg am six mois bi ma amee six mois lañ ma wax li kii nga ëmb boo ko imbee من بعد ما قد حلا واو يقال لها هانت حملت بدرا سيد الأمم أممي إذا ودعته سميه محمدا أمرتمي أي كتمان فتغتنمي لوجس تخلي بنكو نب نينا مو أم جرم نياري وير ماي روت تتين وا دي روت روت بباري ما سما بان فيس ما بغو كما ين كن منو ما ين ما توك با يغ كي نيك سما بير سيدنا محمد نما ياي ماني كو نام من ياي خارال ما ين لا واي ياي بوكو واخ كين دي تالال لوخو ndeyjoor ba moom Seydina Muhammad yéen yaayam yaayam wàññeeku dem waaye maam El Hadj Malick ne Cheikhul Hadj Malick ne yëguni Cheikhul Hadj Malick ne topp naa ko topp naa ko waaye dinaa la wax ñaata weer lañ ko mbéemoor muy ëmb El Hadj Malick mois weer wu wa Adama ñëw wu ñaareel ba Chiisa ñëw baytu ba gën gaaw jaa Adamu tabshiran wa Chiisu laa Idrisu wa Huudun wal Xalil simi summa zabixu kalimullahi kilmatuhu min awali chehri fi tartibi laa tahimi maam El Hadj ne keroog bi muy gane adduna El Malick ne maa ngi Tiwaawan jak saaw longueur de naa Moustapha dañoo euh, césarienne biiru yaay Amina jumbax ba ubbeeku Moustapha tallal tànku ndeyjoor ba sukk butu oom ya tallal tànku càmmoñ ba sukk butu oom ya sama Malaaji Malick ne maa ngi Tiwaawan maa ngi longueur de de tallal na loxo joor ba bank na ñeenti baaraam ya ma ngay tallal baaraamu sànnekaay ba Alaaji Malick ne li muy wax mi ngi may tànqal ma ni Maodo lan la mu ni lii la doon wax keroog allahu akbar kabira walhamdulillahi wa subhanallahi bukratan wa asila ma maam alhaji malik bindal mu ne yuumi sababata miqbaadan asaabiahu misla musabbihi yarnul ulwa dhahimami lim doon wax mooy jalaala rabbin rafiin qaala xiina ataa wa qila sabaxa fi takbiri dhal ilami sa maam alhaji malik ne keroog bi mu juddoo moom sayduna muhammad yàlla dafa samp ñetti drapeau benn ba ca diggu kaaba ga benn ba penku benn ba soo ngir lan màggal juddug sayduna muhammad raat salasata alamin qad intasabat fi kaabatin mashriqin wal maghrib irtasimi maam alhaji Malick ne yëgooni gàngu naayu buur yi keroog buur bu tëdd sa gan gàngu naay xaji Mansour xumma mm, gàngu naay bi da lay ba sa biir weex nga daanu ni lu xew ñu ne sangu àdduna ak laaxira moo gane àdduna ma ni sama Alaaji Malick bindal mu ne tazalzalat uswanatul muluki ka kaabatin salasata ayamin falam taqumi maalat mamilan maa al arkani aw danaa la wax nu mu màggee ma ni lëfug dama guddee mu ne xam naa nu mu màggee bankal sa baaraam shababuhoo màggug njool màkk maa xulaamun déet benn xale shabbahoo di màgg li Moustapha daan màggee wala yow shahrun li muy bis weer lañ koy màgg wa amun shahru dil karami li muy màgg at weer lañ koy màgg lajumal ne xam naa kañ la raam ma ni Maodo kañ la raam mu ne xam na bi shahray ne ci ñaari weer fil jiimi trois mois alqiyaamu lay taxaw fii daalin quatre mois xadaa mujj mum si kal jàpp lu miir yi zahimam ñi mu borom yitte xudrat kattanatul machi kattanat dox ga fii ha in ci cinq mois asraa gaaw na fii waawin ci six mois wa fi zayi sept mois yasaa muy dox saa ya muxtasimi doxu aji farlu waa ma ni tant bi xanaa ko soppalaaji Malick ne ma fi maam ne xam naa la wax kañ la wax ja set ma ni Maodo bindal mu ni fii xaa takallama fii taa in fii xaa ci huit mois takallama wax na Cheikh Fall fii taa in neuf mois fasaaxatoo wax ja set wecc fil yaay dix mois yër jusumi ñi mat ci bët mat sama maam El Hadj Malick ne min qabla amayni njëkk muy am deux ans kaana nekk na jëf ren di am ponkal ba mu mënee ñëpp sa maam ne Imaam Diagne lillahi eskay may yéem yàlla darru adibin baaxu aji yaru ji shabba màgg na fil yutumi ci njirim El Hadj Malick ne topp naa ko deux ans topp naa ko trois ans quatre ans El Hadj Malick ne quatre ans am na lu xew ci dundub Seydina Muhammad ma ni Maodo lu xew mu ne yaayam moo génn adduna wala juróom benn at ma ni Maodo bindal mu ne am arbaatin aw sittatin halakat ummu lii bi ab waa awi zoxni alhaji Malick ne topp naa ko ba mu am cinq ans cinq ans yóbbu nañ ko mu nàmpali waat nañ ko alhaji Malick ne topp naa ko ba mu am sept ans am na lu ko dal eh Maodo ko dal mu ni dafa wànnent bët yi dafa rëy la say weex dafa àgg ca tar la say ca kukku waaye mu wànnent ba mu wante ne ba mu wànnentee maam alhaji Malick ne pharmacie bu ñu jëndee tuufaay ba man Maodo xam naa ko waa alhaji Malick ne yëgoonu tuufaay ba la mu def xam naa naa ko mu ne El Hadj Malick bindal Sénégal dañoo bare wax mu ne fii saabiil aami wul haadi ataahu lahoo fa yàlla hoo ramadun min shiddatil alami El Hadj Malick ndax xam nga docteur ba mu ne xam naa hudi ila rahibin tabbin yaqulu lahoo eh lan mooy docteur ba lan moo koy faj mu ne médicament ba dawriqu wajal alharami demal nga delloowaat ko yow baaya tëxam bi yëgoone li koy faj mooy yàbbitu gémminam mooy faj mooy faj bët ya ñu tuuf ko ca bët ya lay weex ne tar alaaji Maalik ne huit ans moom Seydina Muhammad huit ans huit ans ah waaw keñ wallahi déggal déggal suñu Moustapha ndax nee na ndax cheikhul haaji malik dafa fekkee jamono sayyiduna muhammad yëgu ni cheikhul haaji malik wallahi alladi la ilaha illa huwa billahi sayyiduna muhammad moo ko feeñu moo ko feeñu naan ko nii ak nii ndax li mu wax ci biir néegu sayyiduna muhammad mosoo ko gis ci benn téere wax naa la ne chambre à coucher bi moustapha daan tëdd chambre à coucher bi menuisier bi ko daaj sama El Hadji Malick ne xam naa turam ma ne El Hadji Malick waa sénégal dañoo bare wax bindal mu ne lahu sariiru qad dahda asaadu حجم ينام عليه القلب لم ينام شيخ الحاج مالين لال بوب تي لنج كو تيرل كيروك بامو генي ادنا جولي كو صلوا عليه على ذاك السرير رضا كما به رفع الصديق سيدنا ابو بكر لال با لنج كو تيرل جولي كو وهكذا عمر والناس بعدهم تبركا داولوا في حمل ميتهم واي سيغ مصطفى سمام نه بو لال كوكو جند صاح خمناكو ñaata la ko jëndee ma ne Maodo dama guddee waa xanaa tant bi ku sopp baay maam maami Serigne Moustapha ألواحه كان عبد الله الشاريها إلى جمال نياتل كجند من بقدر أربعة آلاف فاغتنمي إلى جمار عبد الله ابن الحارس مودم شام جند فبوال بنيو داتكو من شامبر أكوشي بيغا خمني شيخ فال سمام شيخ الحاج مالك كن دو موم يغوني غنار غويخ غا خمني مودان مودان نود مودان نود فجر إلى جمار ne xam naa ko maam El Hadj Malick dafay wax di wax di wax ba seetu bi ne seetu ba sax xam naa lu mu tudd mu ne El Hadj Malick bindal mu ne sëmmil mu di lata miraatu nabi El Hadj Malick ne yëgoo ne Sayyiduna Muhammad alayhi salaatu wa salaam yaaw na yàlla barkeel la Sayyiduna Muhammad moom El Hadj Malick ne seetu ba ma nga tuddoon mu di la maa ngi ñaan guddi na guddig jàmm kenn ku nekk nga dendal jox ko loxo ni ko bal ma ak bal naa la ba déwoon ak jàmm wasalaamualeykum wa rahmatullah maa ngi leen di jox nuyoo ak ziyaara alhaaji Pape An Makumba nga xamni ni ma nga ca pari ànd ak suñ mulay si motax teewul ci gamu gi ñuy doomi ndeyam di doomi bayam mu yabal ñu ñu ñew wutu ko fi te yag nañ fe ñew diko wutu ma sha allahu waa kër dala Lo dal na yalla barke lepp yalla bu mu nek suñu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh mara je fal fal Abdou Boni fal fa waddu wele ma ca gaaya yaag Moustapha mi Yena bok men mam, nah ndax mam Abdullahi Fall magat mam yaqub Fall mam Abdou Boli Fall mam Fawad Wele mam Cheikh Sidi malik Yena bok mam de yang Mustafa Mi Serigne Mustafa Mi tok di sunu dom waye di sunu Serigne nak ndax nok bayam mawdo ñew nañ ci tund wi nok bayam Seydou Nourou ñew nañ ci tund wi noog baayam maam Ousmane yal na ko yàlla dollee wéral ba mu delluwaat ci sagoom ba àndaat ak nun ñëw nañ ci tund wii kon dëgga jam maam jam baay bu jamul doom doom teggi na ndokk si ba nga teggiwul lii kat dañ lay ñaanal yàlla rek yàgg say baay yàlla na ngeen yàgg a mag ñi te nu ne fii ànd nañ fekk sa waajur wu góor ànd fekk sa waajur wu jigéen fekk fi alaaji asan xuma yal na yàlla dolli leeram fekk fi chef de village bu ñu masaana ñëw daf nuy booleek ceer nañu ànd ak Seydou Nourou dugg ci tund wi te lii nga wax léegi maraa ne Seydou mooy texe Nourou mooy leer kon képp ku mas a ànd ak moom am nga texeeg àddina ak texeeg laaxira am nga leer bu dul woon ni mu demee nag lu leen di woyal ba six ñu julli ñibbi waaye ni mu demee la te jàkk ji nodd na te sëriñ bi war naa waxtaan si dem ba yàlla nay sa muur yàlla na ngay sunu muur nuy sa muur yaa ko sa maam sa baay yii fi nekkandi yàlla na ngeen leen yàgg a wóotu ci diina jeeg tarixa beeg bokk gi te nu ne fi nag sa bàyyi Babacar sa bàyyi Maodo sa bàyyi Mansour sa baay Abdoul Aziz Serigne Babacar Sy Abdoul Aziz yàlla na ngeen leen yàgg a wuutu te nu ne fi yéen set yëpp nag jërëjëf si jërë ngeen jëf yàgg sa jigéen ñu baax ñooñu nga àndal ñëw jërë ngeen jëf Hadj Mansour jërëjëf xuma mu jëw leen puso bi mu réer ku mu jë puso mu réer kat ray nga ña ñëwagul te ñaawaguñu te war a ñaaw yi ëllëg ndokk bi ngeen mujjee puso bi te réerul ah, mbooloo mi ñun ñëpp ñu bokk déglu nag Ah, am na bu nekk fële ah waaw